salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp xam naa ni kàddu yi mën naa bañ gudd torop di remercier docteur Babacar Diop ak FDS ci seetsi gi ñu seetsi tey ak euh, yëg-yëg ñu am ci ñun ba tax ñu ñuy boole ci seen yitte. FDS nag dafa di kuréel goo xam ne bëri na lu ñu bokk ak ñoom dafa di kuréel goo xam ne nuru na trop ak Pastef Pastef nuru na trop ak FDS naam lenn ci FDS particulièrement ki ko jiite mën nañu wax ni moo ñu jiitu ci langue politik bi euh, waaye ñoo bokk génération muy benn bokk yéeg-yéeg ak gis-gis ci réew mi moo tax du surprise su dee ku mel ni Mamadou Dia boole nañu di référence ci ñun di référence ci ñoom waaye it ñoo bokk ci wàllu doxalin ni ñu gisee ni nii la ñu war a doxalee politique ci Sénégal kon jàpp naa ni suñu bopp lañu dalal fii tey ci waxtaan goo xam ne waxtaanu déglu la d'abord pour gën a xam li wundu mbir mi waaye waxtaanu apporter suñu soutien inconditionnel à nos amis du FDS donc damay commencé par félicité waa FDS parce que li ñu def dafa am solo man dama jàpp ni ñun ñëpp dañ leen waroon féliciter parce que dañoo dem ba war a taxawal kuréel parti politique ñu def effort de recherche parce que loolu daf ci am solo effort de recherche boo xam ne dañoo dem seet ci suñu histoire ci suñu aada dem creuser fu xóot xóot pour tànn ci loo xam ne dinañu delloo si suñu bopp loolu dafa am solo parce que jàpp naa ne bu ñu jëloon benn tour rek ci nasaraan coow li lépp du am waaye dañoo def effort de recherche dem génne loo xam ne valeur la ci ñun ñëpp nag ñun ñëpp parce que dañoo am ci suñu histoire loo xam ne. dañ koo yaroo màggee ko damay wax Sénégal en tout cas sénégalais suñuy maam amul ku leen gën a théoriser ay valeur jom fulla fayda fit kóllëre teranga leneen ak leneen amul ku ñu ko gën a théoriser ci histoire àdduna gëw ma ko waaye est-ce que tey ñun ñi nga xam ne ñooy seeni sët seeni sëtaat ñoo ngi koy dund ak ñoo ngi koy dundal question boobu kenn ku ne ci ñun mën na cee tontu bokk nag ci ñu koy dundalee mooy ku toll ba war a sanc loo xam ne lu ñëpp war a xam la naam mun nga jël lenn ci nasaraan waaye góor góorlu dem seet ci suñu cosaan suñu aada suñu histoire loo xam ne mën na koo màndargal nun de biñ ci tollee noonu lañ defoon ba looloo indi Pastef ndax Pastef du tubaab te ba ñuy tànn dañoo njëkk a xalaat ba taxawal Pastef doog a xool nag benn lettre bu nekk lan lañ ko mën a màndargaal ci nasaraan luy symboliser suñu combat looloo andi patriote bu njëkk ba sénégalais du Sénégal léegi patriote africain du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité bu nekk nag di valeur bu am solo boo xam ne dafa bokk ci suñu combat waaye balaa ñuy tànn balaa ñuy dérouler ci français dañoo njëkk a ut ab baat boo xam ne jàpp nañ ni baat bu am solo la boo xam ne soit ci suñu cosaan suñu aada wala ci li muy signifier dafa di baat boo xam ne koo ko wax rek war na am lu mu def ci moom ci lu jëm ci lu baax ñoom loolu la ñu def ba génne nag baat bu am solo boobu di gelawaat kon ñun dañ leen di féliciter ci effort boobu ndax du baat boo xam ne dafa renvoyer à une à une logique politicienne strictement mooy nu may def rek ba jël nguur gi rek du baat boo xam ne day renvoyer ci loolu rek mais baat la boo xam ne daf ñu bëgg a renvoyer à de valeur très fortes yoo xam ne ay benn xeetu nit ci société bi boo xam ne mënoo ko askanale ci ci ci waaso bi wala ci waaso bële moom wax na ko léegi dama ko doon tooñ ne ko Babacar am na ethnie bu bees Sénégal waaye etni boobu liy jafe-jafe mooy munoo joxoñ kenn ne kii mooy gelwaar bi saal bi de fii woon na ma soosee ngi fi joolaa ngi fi olofa ngi fi séeréer a ngi fi pël a ngi fi mankaañ ñëpp a ngi fi waaye soo ne woon gelwaar Sénégal kan lañu ñu mun a joxoñ ne kii mooy gelwaar ñun ñëpp ñooy daje ni ñun ñëpp gelwaar lañu parce que valeur la du ethnie kenn du nangu ñu génne la ci gelwaar yi fii am na parti yoo xam ne nañu ay républicain lañu mais est-ce que am na ku nekk fii koo xam di nga nangu ñu ne la yow doo am na parti yoo xam ne nañ démocrate lañu est-ce que am na ku fii nangu ñu ne ko doo démocrate am na parti yoo xam ne nañ patriote lañu est-ce que fii ci salle bi dina am ku nangu ñu ne ko yow doo patriote kon suñu ne woon Guelwaar ku xam signification bi rek yaa njëkk a fëgg sa dënn man Guelwaar la kenn mënu koo askanale benn xeet kese ci biir réew mi wala benn waaso moo tax c'est ridicule il faut que ñi ñu jàkkaar lool wax ñu ban waaso mooy Guelwaar ak fan la ñu nekk ci senegal ak ñaata lañu ci lim nuñ mel il faut ñu wax ñu ko parce que man maa ngi doog a dégg nag ethnie bu tudd Guelwaar au senegal maa ngi koy doog a dégg kon ñu ngi leen di félicité ci effort boobu di leen wax ni di ngeen am suñu soutien total et absolu dans cette lutte parce que dafa am yoo xam ne xeexu principe la mënoon nañ ne lii waruñoo tardel ñoom mënoon nañ ne lii waruñoo tardel kon nañu bàyyi gëlawaar bi rek ñu jox ñu suñu récépissé léegi ñu dem defi suñu politique mais dafa am xeex yoo xam ne c'est des combats de principe te dafa am solo parce que benn benn yooyu ngay bàyyi mooy tax nit ki gën a mën a dëkk ci li ñuy wax abus de pouvoir mooy jaay doole gu tegul ci yoon jaay doole gu tegul ci yoon nag mooy li ñu gën a wut a mbargale mandargale nguur gi fi ne nguur goo xam ne su ba ngoon jot yow waroo tudd nii nii nga war a tudd gëm naa ni senegal nañ dem ba nit dina am doom tuddee ko ma xujja ñu ne ko déedéet ma xujja moom amoo droit tuddee ko fi foog mu tudd rek Macky wala Masal wala xaw ma lan foofu lañ jëm wala nit ne damay organiser wu soxlaw ma xaalis bu jóge ci bitim réew soxlaw ma ay lobby yu ma jox sénégalais yi ñu bëgg nañu dajal lu ñu am joxe nga ne du fi amee kenn du cotiser dem naa dañ suñu logique nag dinañ dem ba ne daayira yi dootuñu cotiser jàkka yi dootuñu cotiser keneen dootul cotiser ay sénégalais yu daje bokk seeni mbir seen statut les ressources du parti mu nga jógee exclusivement ci cotisation yi ak ci dons yi ñi ñi daje ne dañuy cotiser nga ne kenn du fi cotiser muy beneen abus de pouvoir wala nga xëy ne opposition dootul am Sénégal démocratie bu mel ni Sénégal nga xam ne balaa ñoom am indépendance démocratie la woon ñu doon wote ay sénégalais doon jàk jàmmarloo ci politique depuis jamono ñoom Galandou histoire a ngi fi ñoom Lamine Gueye ak Senghor ñoom Galandou Blaise Diagne boobu amaguñu indépendance di dox di dox ba am indépendance parti unique am fi ñu dox dox dox nit ñi xeex di xeex di xeex clandestinité ak yeneen ak yeneen ba Senghor bi fi ne newoon xam ni loolu mënatul woy mu ubbi ne démocratie léegi bien que c'était limité ba mujj ñu nekk ci démocratie intégrale ab waay boo xam ne nee nañ ne après les indépendances daanaka amul benn combat ba mu musa mënee sa àdduna dëgg dëgg dëgg ndax da raam la ngaamu ci ay parti ay appareil cacher ton jeu ba ñu defar la faxas la génne la fa nga newoon def la nit def la directeur général ministre ba ministre d'État ba premier ministre ba président assemblée nationale ban combat la mëne tey fii dans les grands combats démocratiques de ce pays musul mëne combat situation am sénégalais yi bëggoon changement tu étais le mieux embusqué nga jël réew mi ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ñàkk humilité weesuwul loolu ak ñàkk xam-xam nag ndax ku xam ku xam tuuti peuple sénégalais di nga xam ne du peuple bu ñuy tënk ba war a mun a am benn parti unique nga xam ne bi ñuy doog a jël indépendance Senghor doole gi mu amoon teewul amoon na ñu ko doon xeex clandestinité ñu leen di tëj kaso di leen daq seen liggéey ñii di génn réew mi yow nga toog ba vingt unième siècle 2012 nga ñëw taxaw naan je biir réduire l'opposition à sa plus simple expression bew weesuwul loolu moo tax loo ci gis bu soobee yàlla il fera face à l'une des plus grandes forces d'opposition de l'histoire du Sénégal parce que personne na peut réduire les Sénégalais réduire l'opposition mooy réduire les Sénégalais le peuple sénégalais a besoin de contradiction il a besoin de forces politiques qui s'opposent dafa soxla kuy jiite ak kuy nekk ci ku gi naan ko d'accorduma loolu bis bu dañee ci réew mi musiba la ñu war ko def nag de manière civilisée waaye pour mu civiliser il faut que acteurs yëpp doon acteurs yu civilisé mais boo amee benn acteur boo xam ne nee na ku noyyi ma duma mënul nekk lu civilisé te boo yaree yëkkati sa yat nag boo yàggee yëkkati sa yat di nga toll foo xam ne yat bi ci yow lay dal kon lii da ko illus benn illustration la rek ci lu ñu mën a lim ci li fi xew 2012 ak léegi tëjaate génne ci réew mi dàq ci liggéey complot lu ñu wax nga ne lii du fi ame te yow ca jamono jooju say ñooñ lu leen neex ñu def ku ci randal alu réew mi sax ay milliards rapport yaa ngi fi fees dell ñu ne kenn du la laal parce que nag ci buur ba nga ne foog ngeen ni am réew nañ ko téye ci injustice bu tànn jotee nag nga war a tànn ay nit laa wax ay nit nit ñu nite parce que réew ay nit a koy yor gis nga pouvoir autorité da nga koy confier nit parce que ñi muy jàpp jëflanteel ay nit lañu mu war a jëflanteeg ñoom ci li ñu xam ñun ci rafetal parce que balaa yat di dal gis nga nit premier élément bi tax nit jox la gëdd bi mu la war a jox nit jox la respect bi mu la war a jox nit jox la kilifte bi mu la war a jox premier élément bi du yat premier élément mooy yow si bopp nga doon exemple ci comportement bi ngay comporté wu ba pare won ko nit lii li nga lu mën a nekk la te ci intérêt réew mi la mais bu dee similaire ak saala rek nga ne nañu dóor bu yàggee boo moytul nit ñi di wëlbatiku sa sa kaw moo tax loolu ki ko mën a def nag mooy ki nga xam ne nite na jëlee ko ci yaram jëlee ko ci formation am jëlee ko ci parcours am waaye bu dee yow dañ laa jiital ci réew balaa ngay mun a tànn koy dénk ab cër rek il faut mu doon safaanu lii ma wax il faut nga jël koo xam ne ambition am jaral na ko lu ne suñ ko ne woon jaayal sa waa kër yépp pour ambition pour egg ci niveau bi dina ko def nga jël ñooñu nag dénk leen ay responsabilité da ngay jël koo xam ne moom la ñu santoon ne ko liquideel ma ak adversaire politique bi mu liquidé nga wëlbati ko ne yóbbu ko ci beneen responsabilité ne ko liquideel ma adversaire bële mu liquidé ñooñu ngay jël nag parce que ñooñu ñoo la arrangé jël leen jox leen ay responsabilité lu tel ni ministère de l'intérieur du caaxaan cim réew ministère amul ministère bu ko gën a stratégique mais bu ko gën a dangereux ci équilibre réew ministère de l'intérieur du lu ñuy politiquer ministère de lu ñuy politiquer kaaraange Sénégal la stabilité Sénégal la ministère de l'intérieur kenn du ko dénk ku ñorul kenn du ko dénk ku ñorul waaye foog ni il faut un exécutant boo xam ne sans fois ni loi koo xam ne amul benn vertu moom nga koy jox pour soo ko nee tey tey tey tey faagaagalal Abbas mu dem faagaagal ko loolu ndax sa bopp la loolu moo ñu yóbbee ci lii yëpp ñuy dund seet leen ci ñaari weer yi ñu jóge ñaata kilifa ci politique bi ak ci diine bi ñoo wax teg seen baaraam ci lii loolu musul am Sénégal waaye tey lay gën a am promotion nag parce que lool moo taxoon ñu teg ko fa waa ji dina kontaan. te ne waajaa ngi def liggéey bi te xamul ni nag loolu mooy musibam ñiy wax nag ni réew kenn du ko yor ci doole ak jaay doole réew kenn du ko yor ci fitnaal nit ñi ku ko mës a def rek di àdduna di àdduna ba léegi depuis ñoom firaaw na ba ñoom xadafi ma génne ci sax xadafi waaye ba ci ñoom Saddam ak ñeneen ak ñeneen gis nañ fi mu mujje te istoire nag moom buukul la l'histoire yàlla dafa am nu mu bindee àdduna histoire day dox mais ci même façon bi lay doxee les mêmes causes produisent les mêmes effets li taxoon démb ak barki démb lii am bis bu dajewaatee loolu amat loolu mooy histoire amul lu ñuy recréer te ñi koy nax nag moom naan ko yow la yaa fi ne defal lii bis bu mbir mi jeexee te jeex na ba noppi gën saa gudd 2024 mu jóge fi waaye ñooñu doon ko doon jay nag ñoo koy njëkk gannaaw gis nañ ko fi 2000 gis nañ ko fi 2012 tey ñan ñoo nekk fële ay ministre ñenn ñi de sax ñi ngi woon ci li CREI yi suma ma juumul ñiy jay buur naan ko yow a defal dóoral bis bis bu mbir mi wëlbatikoo ñoo koy njëkk a war dina wéet trop ak boppam moo tax nañu delloo ci seen xel gis nga Sénégalais seen yitte fim ne nii du ay gelwaar ak ay Pastef ak ay soo jëlee sa énergie yëpp nag ak sa temps yëpp xool nooy faagagalee adversaire politique munoo toppatoo yitte Sénégalais yi tey ñu ngi ci mbënd bi daaw ci négatif ñun ñëpp demoon nañ ci mbënd bi man ren dama am gàcce demaat ci mbënd mi ñu joxoon fi engagement bu ne tey ay famille entière gi tëmb si ndox mi am na yoo xam boo ko gisee da ngay tëm bool sax doo mun a lekk ndax yërëm ñooñu nit ndax mun na nekk ci condition yooyu jamono jooju ana président de la république ana président de la république Sénégal est-ce que amati président ñemewul génn sax wax ma mu dem fa de waaye ñemewul génn sax def déclaration massawu ñooñu waaye mi ngi jég yéeg ci avion bi mu jëndee soixante milliards ay chasseur suisse di ko escorter ñu koy jëlal ay selfie xam nga loolu mooy narge sax le peuple jamono joo xam ne tey njëg yi amul produit booy jël te njëg gi yokkuwul ba sénégalais amatuñu lu ñu lekk mbir mi métti na ana président de la république ana président de la république est-ce que réew mi amati na président jamono joo xam ne génn nañ ci troisième vague boo xam ne ubboon na bopp ñëpp li fi jóge ci nit kenn xamul lu mu toll ana président de la république réew yi dox de diggante def naa tugal ñu ngi woon seen quatrième vague diggante bi muy door rek bi muy jeex président de la République def na ñeenti allocution sans compter nag émission yi mu def directement ci internet bi nit ñi di poser seen question ñuy répondre Sénégal ana président de la République président de la République foofu lañ la soxlee bi nit ñi nekkee ci guuta nga génn wax ak ñoom parce que yaay général bi mais bu bu méttee rek nga daw tëju sa palais ak sa kër kenn du la dégg bu affaire bi xawee baax nag nga génn di commencé waat nag taal fitna seet kan ngay song loolu du président de la république je suis désolé sénégalais yi de vous le amu leen président de la république jamono joo xam ne barki demb rek waxaat nañu diggante dar ak feneen ak feneen ay nit ndaw yoo xam ne ndool ak ñàkk liggéey ñoo tax ñu ñu doon fexe pour dem tugal dem bitim réew ñaata bakkan na ci rot ay nit lañu duñu ay mala ana président de la république bi ñu génnee ci événement mars yi ñaata emploi la fi promettroon dajale xale yëpp jam ñaajo kan moo fi am liggéey kenn te du ko mus mën a créer nag parce que mënu ko xamul fu ñuy jaar pour def ko à part politique politicienne nu may def ba falu wala ba faluwaat nu may def ba liquider adversaire politique amul beneen xam-xam bu mu am réew mi foofu la toll moo tax wax dëgg yàlla nekk fii naan gelwaar kan la déranger wax dëgg gelwaar kan la déranger est-ce que fii ci salle eh, am na koo xam ne suñu ne woon parti bi gelwaar la tudd déranger na la man musuma gis li ba tax daal Babacar vous avez tout notre soutien lépp lu ngeen ci war a def ñoo ngi koy ànd ak yéen illégalité moo tax ñemewu ñoo bind man je suis un fonctionnaire ENAM li ñuy njëkk a jàngal l' administration fonctionne par écrit administration day bind administration de tradition orale du ay nit yu koy passante de père à fils ñu naan histoire bi ñu la demoon administration day bind buñ ko bindee dafa war a tontu te yoon dafa ne ñeenti weer lañ ko may pour mu tontu lan moo tax duñu tontu ñu bind kon ñu leen di féliciter di leen encourager colloque bi ngeen di def tam am na solo parce que au-delà de seen affaire bi dina permettre sax ñun ñu bëri ñu ngi dégg Guelwaar am nañ ci benn idée nii rek mais ñu gën a dekkil valeur yu am solo yooyu partager kook Sénégalais yi parce que li may faral di wax te foofu laay daanelee bokk na ci suñu problème mooy ñàkk xam suñu histoire ñàkk xam suñu histoire moo tax Cheikh Anta Diop am solo chaque fois ma ne ndaw ñi na ngeen dem liiraat Cheikh Anta Diop. parce que suñu histoire da nga wax léegi euh, histoire générale du Sénégal tom yëpp laa ut mi ngi fii sama bureau ci suuf mais suñu histoire booy waxtaan ak nit ñi dafa mel ni dafa am fu mu fu mu commencé te loolu da ngay am jafe-jafe dépassé époque médiévale waaye ñun dañoo am histoire depuis l'antiquité même avant l'antiquité la préhistoire et tout mais suñ jëlee depuis l'antiquité sax mais kenn gënuñoo baax histoire te tant que delluñu suñu histoire en profondeur dañuy continuer am complexe tubaab bi dafa xam histoire am dalay lay wax huit siècle huit huit millénaires d'histoire chinois bi dafa xam histoire am bo chinois bu am onze ans boo ko waxee mu ne la ñun bi ñuy tabax la muraille de Chine Europe ñu ngi woon ci la ba kon ñun ñoo war a dominer adduna mais fi koo fi wax da soo weesoo jamono ñoom la joor ak yu demee noonu am nañu jafe-jafe wax lan mooy suñu histoire mais dañu am histoire depuis l'Égypte ba tey ji dañoom am histoire te histoire bu rëy la kon yéen li ngeen di def nii da ngeen def œuvre historique pour restaurer des valeurs ñu ngi leen ciy féliciter et vous aurez tout notre soutien donc en résumé en français je remercie nos amis du FDS d'être passés nous présenter le problème qui les oppose aux autorités de ce pays est un problème tellement puéril que on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire, qu'une formation politique qui ambitionne de transformer qualitativement ce pays-là et qui ait pris le temps de réfléchir sur sa dénomination. Parce que la dénomination est extrêmement importante pour une formation politique. La dénomination doit renvoyer immédiatement à des valeurs, mais surtout à un objectif. Et que cette formation politique et réfléchie est pris le temps de faire une intrusion, un retour très profond dans notre histoire et dans notre passé, pour en extirper un vocable extrêmement important, un vocable extrêmement partagé entre toutes les sociétés du Sénégal, mais qui renvoie à des valeurs fortes d'engagement, de détermination, de rigueur, de patriotisme. Parce qu'il faut être patriote pour se battre pour son pays. Il faut être patriote pour être prêt à donner sa vie pour son pays. Et ce qui représentait des pays à cette époque-là, c'est les euh, royaumes et les empires que nous avions ici. que ce soit le Gabou sud, le Bawol, le Walo, le, le Kayor, ainsi de suite, le Sine, le Saloum. Et partout, vous retrouviez des Guéloirs. Et qu'une formation politique ait choisi cela est à féliciter, à encourager. Et moi, je considère que toutes les formations politiques doivent faire cet effort de recherche, aller en profondeur. En tout cas, nous, quand il s'agissait de mettre en place un parti, nous avions instruit les gens de réfléchir sur une dénomination dans une de nos langues nationales, mais qui renvoie à des valeurs fortes. Je me demande même si un jour on ne va pas nous dire que passif renvoie à une ethnie. Parce que passif est un mot Wolof, ce n'est pas un mot français que je sache. Et il a une signification particulière en langue Wolof. Hier, j'étais à Touba pour présenter des condoléances et il y a quelqu'un qui me disait Mais qui a choisi PASTEF Est-ce que vous savez vraiment ce que signifie PASTEF C'est du Olof. Ce n'est pas du Diola, ce n'est pas du Mancagne, mais ce n'est surtout pas du français. Les femmes de notre parti ont choisi de s'appeler les Lingers. Linger et Gelawar, c'est la même chose. Linger, c'était une catégorie sociale qui a euh, incarné des valeurs, des vertus et des combats. Et vous pouvez retrouver ça dans d'autres formations politiques. Chacun avait euh, un, un, un, cri de guerre. Vous aviez Jallarbi, vous aviez Sopi, vous aviez euh, Joyanti, etc., etc. Chacun a quelque chose qui va avec euh, la dénomination qui peut se décliner par ailleurs en français. Et donc, c'est là le danger. Et c'est pourquoi Après avoir félicité vivement nos amis de Guéloir, nous, les assurons de tout notre soutien dans ce combat de principe. C'est un combat de principe contre l'abus de pouvoir, contre même l'excès de pouvoir d'un gouvernement, d'un régime qui ne connaît que cela. Si vous deviez faire le bilan de ce régime sur les Euh, dix dernières années, vous ne pourrez dire autre chose que l'excès et l'abus de pouvoir, la persécution de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, partis politiques comme mouvements citoyens, l'interdiction qui est le principe. Vous n'avez pas le droit de vous, de vous appeler tel, vous n'avez pas le droit de lever des fonds, des cotisations de vos militants, Vous n'avez pas le droit d'organiser telle marche ou tel meeting. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. C'est ensuite la persécution des opposants par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Et ça, ça colle avec le leitmotiv même de, de celui qui a été élu président en 2012. Parce Au lendemain de son élection, il avait annoncé tout de suite qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression, ce qui devait alerter tous les Sénégalais. Un vrai président, un vrai démocrate ne doit pas ambitionner de réduire l'opposition. Celui qui aime vraiment son pays doit tout faire pour qu'il y ait un pouvoir qui gouverne et une opposition viable, parce que le vrai baromètre et surtout ce qui peut aider à performer, c'est d'avoir une opposition sérieuse, structurée, bien documentée, qui critique et qui vous permet de rectifier. Un vrai démocrate ne souhaiterait jamais, si Ablaïd avait réduit l'opposition à sa plus simple expression, il ne serait jamais président de la République. Ça, c'est les germes ou l'ADN d'un dictateur. Et c'est pourquoi le dire comme ça, avec autant d'arrogance, de, de manque d'humilité, C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le retour de bâton. Il se retrouvera avec la, le plus fort regroupement d'opposition, l'un des plus forts regroupements d'opposition que le Sénégal ait jamais connu. Et en tout cas, je, je dirais simplement, je lancerai un appel ou je lui donnerai un conseil. Un pays ne se gouverne pas par le bâton. il ne se gouverne pas dans la il ne se gouverne pas dans méchanceté il ne se gouverne pas dans l'inimité quand on est élu il faut faire preuve de magnanimité de dépassement quand vous êtes élu vous êtes le président de tous les Sénégalais y compris vos opposants il faut gouverner conformément à la loi mais appliquer la loi de manière bienveillante ce qui donne la légitimité à un gouvernement et ce qui va faire qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat, ce n'est pas le bilan que vous avez en termes d'emprisonnement, en termes de tapassage d'adversaires, en termes d'interdiction. Ce ne sera pas ça qui fera qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat. Et l'histoire de l'humanité se reproduit et se reproduit encore. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. De Pharaon à maintenant, c'est la même histoire. Et je lui conseillerais de comprendre que tout les conseillers alimentaires autour de lui, les gens qui ne calculent que leur petit, leur petit salaire ou les avantages qu'ils ont et qui lui disent il faut foncer, il faut taper, il faut massacrer. Ce seront les premiers à lui tourner le dos le jour où il perdra le pouvoir. Et l'histoire de 2012 et de 2000 sont là, les histoires de 2012 et de 2000. Beaucoup de gens qui étaient autour du, de, de, de, du, du président Blaywat, ils sont où aujourd'hui Certains siègent au Conseil des ministres de Macky Il lui reste encore deux ans de pouvoir, deux ans au pouvoir. Il ne tient qu'à lui de donner les orientations qui lui permettent d'avoir une sortie, en tout cas moins déshonorable que ce qui s'annonce. Il ne tient qu'à lui. Mais il faudrait qu'il comprenne que ce n'est pas en choisissant ce qu'il y a de pire dans ce pays pour en faire des ministres ou des ministrons qu'il va avoir une sortie honorable dans ce pays. Choisir des gens qui sont prêts à sacrifier père et mère, qui sont prêts à marcher sur des cadavres pour une ambition, pour satisfaire une ambition. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est lié à une histoire, ne lui permettra pas d'avoir cette sortie honorable. Il est temps de se ressaisir. Le peuple sénégalais a d'autres préoccupations. Quand on passe tout son temps quand on oriente tout l'appareil d'État à, à, à, surveiller et à essayer de liquider des adversaires politiques, on n'a pas le temps de s'occuper des préoccupations du Sénégal. Les préoccupations des Sénégalais, c'est aujourd'hui cinq noyades dans les inondations. Il y des familles aujourd'hui qui dorment dans l'eau. Il y a des familles qui mangent dans l'eau. C'est triste. On a mal quand on voit tout cela. Mais où est le président de la République y a-t-il encore un président de la République dans ce pays Ils n'osent même pas faire une déclaration. Je ne dis pas, allez voir ceux qui sont dans ces situations-là et leur... Euh, évidemment, quand vous avez des gens qui sont prêts à faire la sale besogne, vous les envoyez au charbon. Nous avons vu justement <laughs> euh, ce, ministre se rendre pitoyablement dans la banlieue l'autre jour et euh, être obligé de, de patauger dans l'eau. Bref, Mais le président de la République n'est plus dans ce pays. Il n'ose pas sortir pour parler au peuple, a fortiori aller rendre visite à ceux qui souffrent. Le problème des Sénégalais, c'est cette troisième vague qui a été extrêmement meurtrière. Lors de la première vague, quand il y a eu quatre cas, ça le théâtre national. On a convoqué tout le monde. Même moi, pauvre de moi, j'ai été obligé de me rendre au palais. On nous a dit qu'on est en guerre. qu'il y a des marchés qui nous attaquent. On a dégagé 1000 milliards ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a une troisième vague extrêmement plus meurtrière. On ne voit pas de président de la République dans ce pays pour parler aux Sénégalais. Le problème des Sénégalais, c'est euh, des gens, des jeunes qui continuent à périr en mer parce qu'ils n'ont pas de boulot, justement. Parce qu'après l'événement, les de mars, on leur avait promis des milliers de boulots. Ils ne verront jamais de boulot sous l'ère Macky Sall. Il n'en a ni la compétence, ni la vision, ni les solutions. Où est le président de la République pendant ce temps-là? Le problème des Sénégalais, c'est la cherté de la vie. Tous les produits ont pris l'escalier, l'ascenseur même. Vous ne créez pas d'emplois, vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat des Sénégalais et vous ne pouvez pas empêcher la flambée des prix. Où est le président de la République pendant ce temps-là? Il n'ose pas sortir et parler aux Sénégalais. Mais il peut prendre son avion de luxe qu'il a payé à 60 milliards. 60 milliards auraient réglé probablement le problème des inondations. Pour aller dans des dans des colloques en Suisse ou je ne sais où, escorté par des mirages. Et il se donne le luxe en de ça de se faire des selfies dans son avion de luxe pendant que le peuple est en train de mourir. Je suis de le dire, il n'y a président de la Sénégal. il va se terrer tant qu'il y aura des problèmes. Quand il y aura accalmie, il va sortir de son trou pour créer encore les conditions de l'affrontement et de la déstabilisation de ce pays. Je suis désolé de le dire, nous n'avons pas de président de la République. Et je conclurai par dire que le problème des Sénégalais, ce n'est pas Guélouard. Guélouard ne gêne aucun Sénégalais. a aucun Sénégalais qui te dirait que ça me pose un problème qu'un parti s'appelle Guélouard. Il n'y en a pas. Pourquoi donc voudrait-on nous, euh, nous priver de, de cette euh, dénomination Voilà ce que je voulais dire en réitérant une fois de plus à Babacar que vous aurez tout notre soutien, notre accompagnement, parce que c'est un droit, et un droit, il ne faut jamais lâcher face à l'injustice, quand vous d'être dans votre bon droit. Je vous remercie.